yow mii di gàmmu ji jox ma nopp déglu ma tuut ma dénk kàddu yoo xam ni bàyyi ko xel yow mii di gàmmu ji jox ma noppu déglu ma tuut ma dénk kàddu yoo xam ni bàyyi ko xel bisub juddug Mustapha lañ woote bàyyi ko xel ni soo jugee na nga yiw ngir yàlla sax ci sunnaam bisub juddug Mustapha lañ woote bàyyi ko xel ne boo jógee na nga yiw ngir yàlla sax ci sunnaam la nabi bëggoon nañ ko bëgg la bi bañoon nañ ko bañ nañ góorgóorlu sax ci sunnaam ngir yàlla bàyyi ko xel la nabi bëggoon nañ ko bëgg la nabi bañoon nañ ko bañ nañu góorgóorlu sax ci sunnaam ngir yàlla bàyyi ko xel yow mi jigéen na nga yiw na nga muuru na nga sol lu jot bum gàtt bum dangum yaraax ngir yàlla bàyyi ko xel yow mi jigéen na nga muuru na nga sol lu jot na ca na yiw bum gàtt bum yaraax ngir yàlla bàyyi ko xel cana ba kenn du fa tux cana ba kenn du fa naan cana ba kenn du fa kart ngir yàlla bàyyi ko xel cana ba kenn du fa tux ca cana ba kenn du fa naan cana ba kenn du fa kart ngir yàlla bàyyi ko xel cana ba kenn du fa saaga ca kenn du dox di caaxaan kenn du ànd ak jigéen ju di dugg biir cana ba cana ba kenn du fa saaga ca kenn du dox di caaxaan te kenn du ànd ak jigéen ju la lewul di dugg biir cene ba jigéen ñi bu ñu sollu gàtt bum dang te bu muy araax nañu jiw jiiw nañu sollu jot ngir yàlla bàyyi ko xel jigéen ñi bu ñu sollu gàtt bu mu dang te bu muy araax nañu muuru nañu sollu yiw ngir yàlla bàyyi ko xel bisub juddug Mustafa sang ba seydina muhammad ku cay dem na nga xam ni aw yiw nga cay fàggu ji bisub juddug yeneen bi xayrul wara kenn du moom ba boo jugee jëm ca moom xamal niw yiw nga fay fàggu ji subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin